jërë ngeen jëf def ñeme bëri ragal bëri Macky Sall ni Leewtoo sax duma ko amal tax mu jël élection yi yóbbu ko ba le 15 décembre 2024 askanu Sénégal ne mukk du fi amee élection yi le 25 février la ñu ko jàpp te incha allah daañu ko amal ki war a toog ci réew mi toog jiite réew mi ni ma waree tax askanu Sénégal jàppoon àjjuma le 9 février jël bés bi tuddee ko journée de la liberté Macky Sall xañ leen seen liberté jël ay policiers wàcce ko ci tali bi mu tax mu am amal fi ay jàmmaar lool démb ci réew bi dooree ko ci liberté 6 bunt Walfadjri foo sànni mbàtt mu tàkk réew mi di tàkk askan bi di jaax ñi nekk ci njàq rek tiis réewum Sénégal tàmbalee jax ak tàkk foo xool gis saxaar ñu amal ay yàq-yàq yu doy waar ci mim réew yàq nañu teer ba taal ay oto dajj ay magasin daal di koy saccagé ba dëkk bu tedd bii di diwaanu Touba bi nga xam ne kenn musu leen dégg ci wàllu manifestation démb dégg nañu leen ci manifestation bi nga xamante ne amaloon nañu ko tuddee woon de la liberté que liberté bi askanu Sénégal ñàkk jamono bi tax na réewum Sénégal nekkatuñ ci jàmm ni ki démb amaloon nañu manifestation tayit amaloon nañu manifestation ba tax am ñu ñenn ñuy àddu naan mbir mi jamono bi mu ngay bëgg doy waax doy na waar ba noppi ndax ñu ñuy wax ni ni amaat na beneen ndaw bu ñàkkaat ba kenam ca diwaanu Ziguinchor réewum Sénégal nekk si naq rek tiis kan moo ñuy wàllu ndax Macky sàll dina dellu ginnaaw am du dellu ginnaaw élection yi ñu bëgg vingt cinq février na ko def jàmm delluwaat ci réew mi tim toppkat 221 samp ab laaj ne jamono bi ani solution la ñu war a mën a trouver ngir Macky Sall dellu boo ko xamee wax ma ko ci commentaire yi